dafa laaj ay moyens nag ñu ngi ciy liggéey moo xam dañ koy organiser euh, partenariat public privé moo xam dañu am moyens yu ñu ko defee mais bëri na loo xam ne ay xalaat la ñu am mais il faut population yi jàpp ci te premier jàpp bi nag mooy ñu fexe ba lii ñu koy sàmm bañ di ko euh, monsieur le conseiller moom moom mooy conseil bu dëkk fii bu doodi na nga ko jàllale waa bu doodi yëpp ñu ñuy jàppale euh, nu mu métti métti métti ñi ngi mettre de plus ndànk-ndànk les conditions ba nga xam ne ramassage ordure day doon lu automatique mais ñu jàppale ñu ci comportement yu mel nii parce que su dee tey def nañ ko at mbalit mi nga ñëwaat dans deux semaines fekkaat ñu reconstituer ko hmm. bu yàggee boo moytul laisser-aller dina am hmm. kon euh, am na yeneen étape yu ñuy def mais c'était une journée bu ñu bëggoon partage ak euh, waa hmm. liggéey bi commencé woon nañ ko weer ak genn wàll ci gannaaw gis nañ ñu liggéey bi xale yi jàpp nañ ci bu baax entrepreneur yi nekk ci dëkk bi yëpp nag ñu ngi leen di gërëmtam tam parce que engins yi ngay gis ni yëpp amul benn boo xam ne ñoo ko moom mhm. dañu bind entrepreneur yi ne leen am ngeen responsabilité sociétale d'entreprise ci dëkk bi ngeen nekk di fi liggéey di gañee donc war ngeen jàppale dëkk bi aussi soxlaw ñu ngeen jox mhm. mais mun ngeen ñu abal matériel boo ab ab boole kook seen conducteur ñoo jàpp ci liggéey bi mhm. pratiquement entreprise yi ñu bindoon yëpp jàpp nañ ci moo fi ñu jaar yëpp gis ngeen fa ay tracteur ay tractopelle mhm. ak yeneen ak yeneen ay camion amul lenn loo xam ne mairie bi moo ko moom mhm. c'est les entreprises ñoo ci jàpp mhm. ñu leen di gërëm di leen féliciter di leen jaajëfal ci turu waa Ziguinchor yëpp parce que noonu la war a deme entreprise yi nga xam ne du ñu entreprise BTP jàpp nañ ci ay Sonatel gis ngeen indi lañ ay brouette ay gants ay ay ay euh, pelle ak yu mel noonu euh, CBAO def na ko euh, Casamance des eaux CMF def na ko moo ko déplacement Dakar au niveau de Ziguinchor aussi. <laughs> waaw mais ban moo la ci Ousmane Sonko waaw SENEP déplacé na waaye SENEP tam ñi ngi xaar seen contribution <laughs> ci wàllu même su dee ñetti bureau sax bureau sax ah <laughs> SENEP nañu ko andil parce que baax na ci donc ñiy gërëm ñëpp mm. euh, parce que réew mi ñoo ko bokk il faut ñu defar ko mm. fédération politique mm. tey suñuy agir agiruñu en tant que président parti dañu agir en tant que maire de tous les Ziguinchorois fii suñ ko defaree ba mu baax ñi fiy ñëw du doon rek militant wu Ousmane Sonko. militant wu Ablaye Balde dina ñëw militant Benoît Sambou dina ñëw militant wu keneen ak keneen. loolu mooy defar réew. du doon loo xam da nga koy def pour orienter ko ci sa satisfaction personnelle. kon ñu ngi ñaan yàlla nag élan bi dynamique bi continuer parce que warul taxaw nettoyer c'est bien mais am comportement yu baax yi c'est mieux encore mais am continuité ci nettoiement bi suivi bi. ba nga xam ne yii ñu fi fekkoon dootu fi amati loolu tam bëgg nañ ñi ñu jàpp si et enfin le le problème foncier loolu nag dama koy wax pour man mais damay lancer un appel également à tous les maires du Sénégal dañu bàyyi xel loolu suuf si suuf si alalu sénégalais yëpp la dañu fexe ba ni ñu koy utiliser mu doon lu rationnel lu utile waaye mu bañ a doon un fonds de commerce mu bañ doon loo xam ne nit ñi. dañ koy def pour jëfandikoo seen bopp ñoom loolu tam dañ ciy insisté bu baax ne nit ñi fexe lotissement kenn du ko def parce que dañoo war a séddoo man fekk naa par exemple benn lotissement boo xam ne 3127 parcelles la 3127 parcelles non seulement waroon nañu bàyyi parce que Ziguinchor périmètre am dafa tuuti Ziguinchor amatul espace. donc sooy def lotissement sax war na am loo bàyyi waaye bàyyiwuñu dara mais ensuite la ñu prévoiroon ci ay espace public ak ay mosquée ak yeneen ak lépp dagg nañ ko boole kook nee ko boole kook nañ ko te lépp li ko li koy andi mooy bëgg a jaay pour am xaalis lu jeex ci Sénégal kon képp kuy maire de manière générale mais rawatina nag maire boo xam ne yeewi askan wi liste yeewi askan bi moo la fal buñ la dégg ci scandale foncier la terre n'est pas un moyen d'enrichissement personnel n'est pas un moyen pour se conseiller un butin de campagne moo tax fii Ziguinchor liñ ci war a def yëpp nañ ko def ba mbir mi ñu leeral ko mu set wicc parce que il est temps que ces comportements cessent au Sénégal loolu daal laa bëggoon tëjee. juste une question de la Vallée Info. Euh, tey jii euh, sa opération bi nga dëgmal tey jii dafa daje euh, Casa Sport am fête ndax di nga nekk si fête. stade stade Aline Sitoé Diatta est-ce que di nga fa teew ci ngoon tey. waaw no stade ba du ma fa teew ndax yégaluñ ma boolewuñ ma te je crois que su ma nee kilifa euh, yàlla def Ziguinchor yëpp wóolu ma ba dénk ma ma nekk maire Ziguinchor mënu ma dem ci ay événements yoo xam ne kenn yégalu ma ko. tey ñu ngi dimanche ba waxtu bi may wax du coup de fil. du invitation bu ñu ma yónnee. Mhm. kon mënuma faa dem. Seydou Sané démb nee nañu jox na la invitation yow ak ñeneen. waxul dëgg. man nit nag da ngay wax dëgg. mag da ngay wax dëgg. ba fii may wax nii du invitation bu ñu jot na ko prouver d'ailleurs ndax invitation da nga koy bind te soo demee nañ la ko décharger du invitation bu ma jot du coup bu ma jot. ñoom nag ta tàmm nañu di wax lu dul dëgg. mag day wax dëgg. man suñ ma joxoon invitation ma dem stade ba ndax Casa Sport kenn ëppalewu ma fa. Mhm. démb barki démb convoqué naa conseil municipal proposé leen ñu voté une prime exceptionnelle de vingt millions pour le Casa Sport kon man suñ ma invité woon ma dem fa. rawatina nag su dee coupe du Sénégal ñun ñëpp ñu moom ko te loolu gouverneur moom moo waroon saisir ndax loolu bokkul ak Casa Sport. mais mais ci dëkk bi nga dëkk yaa ko jiite est-ce que véritablement nekkul tamit nga bañ a xaar invitation dem. comme non non non kilifa tamit fu ñu la wowul dem. xam nga àdduna dafa am nu mu tëree. Mhm. du question rëy du dara mais kilifa fu ñu la woowul bu fa dem ndax soo fa demee bu ñu la fa toroxalee it yaa ko sa bopp. Mhm. man jàpp naa ne ne serait que pour l'image des Ziguinchorois et des de Ziguinchor. Mhm. le minimum yàqul dara ñu ne diw mooy maire Ziguinchor donte du duma nañu ci ay élection may loolu weesu na tey man maay seen maire ñoom ñëpp ku soxla euh, kayit man maa la koy signal loolu la yàlla def. Mhm. politique bu jotee ku nekk na dem politique man que ñoom ñu may attaqué politiquement musuma leen tontu ndax du ñu samay nawle ci politique. yàgg naa ko wax on ne boxe pas dans la même catégorie donc du leen tontu samay àndandoo sax du leen tontu mais politique bu jotee kenn ku nekk ci ñun xam nga nooy politique man xam naa fu may jaar ba duma leen te du ma utiliser Casa Sport du ma utiliser association religieuse du ma utiliser association culturelle programme laa am ak discours ak image moom laay waxee ak waa Ziguinchor ñu woteel ma nañu bàyyi di yóbbu politique fu politique yoonam nekkul Casa Sport du instrument politique gu kenn bu ñu yaakaar ni Casa Sport moo leen dese pour ñu yóbbu ko yéet ko Macky Sall dañuy nax seen bopp li ëpp ci Casa Sport muy supporter muy muy muy muy encadrement muy joueur mhm. boo leen laaj joon kan la ñu àndal dañ leen Ousmane Sonko te musuma dem ci ñoom wax ak ñoom politique chaque fois su dara amee dinaa jël ci sama poche bopp joxe waaye su ma ko joxee pare daaw moo ci mujj dama leen ne hmm. bugguma sax ngeen wax ni Ousmane ko joxe na parce que dama ko joxe en tant que supporteru Casa ba may ne xale ba léegi hmm. fii dama daan nekk fii di ramasser des ballons bi Casa daan ju fekk ñu nekk xale hmm. donc Casa suñu équipe la donc amul lu luñ ciy soxla ci politique la ñuy def dañ koy def parce que ci fii la ñu dëkk démb balaa ñuy nekk autorité fii la ñu dëkkoon di ko def rawatina tey bi ñu nekkee autorité kon nañu bàyyi di politiser fu politique nekkul Casa Sport mbirum Casamance yëpp la c'est devenu même un patrimoine national ndax bu Sénégal di football li gën a fa ci supporter ale Casa la kon yan yi nañ ko bàyyi man nag fuñ ma woowut du ma fa dem gouverneur wóor na ma fi ñu jaar yëpp ci région yi maire ba fa nekk deux jours ou trois jours une semaine à yéegal yégal ko ni nañ ko ni kub bi dafay ñëw li tax ma toog ba tey ji yéeguma ko est-ce que loolu yoon la kon moo tax du ma fa dem du ma fa jege et je leur souhaite une très belle fête. bu loolu weesoo Casa Sport les joueurs et Allez Casa dinañ leen recevoir parce que am na prime de cinq cent mille francs par joueur bu ñu leen di jox pour féliciter leen ci saison exceptionnelle bi ñu def euh, Allez Casa it am na lu ñu waajal loo xam ne mu tuuti tuuti mat na neuf millions wala dix millions pour encourager leen parce que c'est les supporters les plus dynamiques du Sénégal foo dem fekk leen fa. mobilisation ex bu commune Ousmane Sonko te defuñu ko di ci ut dara en retour politiquement loolu moom mooy suñu position. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup voilà Ousmane Sonko moom la ñu amoon